Cette vidéo est sponsorisée par iMyPhone. Assalamu alaikum bienvenue sur CTGHT sama tu es de mon pour présenter les logiciels logiciel bi de permettre de transférer ces données WhatsApp peu importe appareil bonnet appareil que jugé, comme mu Android ou iPhone application bi de les permettre de transférer ces discussions WhatsApp ces données WhatsApp pour facilement et balaa sorry de de voir cette vidéo est sponsorisée par iMyPhone e tey dañuy wax seen logiciel bi lay permettre nga def loolu muy iMyPhone iTransor balaa ñoo sori dama leen di fàttali juste ngeen abonné wu sama chaîne YouTube mais itam ngeen bës ci cloche de notification bi pour di jot notification saa su ma dugalee vidéo bu bees léegi nag ñu dem si ordinateur bi ma wan leen logiciel bi lay permettre nga mën a transférer say données WhatsApp muy iTransor for WhatsApp bi nga xamante ni waa iMyPhone ñoo ko développé et boo duggee application bi nii lay présenté woo Euh, li ngay njëkk gis mom moy transfert WhatsApp entre des appareils bi euh, partie bi da ngay gis ñaari appareil yi appareil source bi appareil destinataire bi dafa fekk ñom ñaar ñëpp nga yoré ko source mom moy appareil bi nga xamanteni moy envoyer envoyé fa la donner WhatsApp bi nekk euh, destination bi wala destinataire bi mom moy appareil bi nga xamanteni fa nga bëgg yóbbu données yi d'accord léegi nak fini ñaari appareil yi day fekk nga yoré ko mais man lima ma leen di wan moy nan lañ koy def ba transférer ko lu ëpp si ñun du ñu yore ñaari appareil mais benn appareil rek la ñuy yore donc partie bii laa leen di wax ngeen ñëw fi comme ça bu ko defee nga xam te ne di ngeen mën a transférer seen données si ordinateur wala fenn ngeen stocké seen données ba pare door récupérer seen beneen portable bi après léegi restaurer seen données yi peu importe appareil bu munti doon ka mu doon Android wala iPhone lépp day mën a nekk d'accord mais itam am na beneen méthode bi nga xamante ni euh, moo gën a complexe boobu day fekk yow sa appareil joxe nga ko ba pare mais yow fàtte woon nga transférer données WhatsApp bi léegi mën nga ko restaurer bu fekkee ni Android la nga restaurer ko via euh, lu ñuy wax Google Drive fi nga xamante ni foofu lay stocker euh, discussion WhatsApp bi fa la koy sauvegarder léegi sama gars yi fu ñuy commencer moom mooy nan ngay def ba transférer ces données utiliser lu ñuy wax iTransfer léegi lu ñuy njëkk def mooy il faut nga brancher yow sa appareil léegi boo brancher sa appareil ba pare ensuite léegi da ngay bës fii ni ñu bind. sauvegarder léegi boo bësee fii ni ñu bind sauvegarder di ngay gis application bi da lay proposer euh, WhatsApp business wala WhatsApp euh, euh, normal léegi ñun suñu données yi fu ñu ko bëgg jëlee moom mooy WhatsApp normal donc dañuy choisir WhatsApp normal d' accord léegi bu ñu choisir WhatsApp normal léegi di ngay gis transfert bi dafay commencer directement fii moom. doo def dara da ngay toog juste xaar déglu appareil bi lépp lum la wax rek nga def ko d'accord léegi sama gars yi di ngeen gis ni sauvegarde bi pare na léegi bu sauvegarde bi pare dañuy bës fii nii terminé léegi euh, da ngay ñëw fii ni ñu bind restaurer et exporter les sauvegardes WhatsApp D'accord, compris fii ngay bës léegi nag fini, nii moom ngay ce euh, sauvegarde yep yi nga xamanteni euh mi ngi ci ordinateur bi fi nga koy gisee et léegi ñun luñ sauvegarde léegi mi ngi né léegi comme que gis nañ que ni c'est koy sélectionné ensuite léegi ñu ñëw ñu bës fi ñu bind restaurer sur l'appareil léegi bu ñu bësee restaurer sur l'appareil di nga gis euh, logiciel bi day commencer analyser euh, sauvegarde bi ndax amul ben virus ndax amul ben problème ak itam trier discussion yep après les gagner le comme ça gagner le lépp vidéo yek audio yek contact yek discussion yi lépp lépp lépp lépp ay normal normal peu importe Android wala iPhone légui nak di ngeen gis ni données yep ngi ni légui ensuite légui leen rek lañuy def dañuy bëss suivant légui ensuite légui ñu ñew ñu bëss fi ni ñu bind restauration légui bo bësee fi ñu bind restauration euh, leen ngay def da ngay top ci su tegtali bu féké ni iPhone nga ko bëgg restaurer manam données ci si iPhone nga ko bëgg restaurer il faut nga désactiver ce Find My iPhone bi ensuite léegi di nga gis restauration bi vite fait lay def du du yak hmm, quelques secondes rek wala quelques minutes ça dépend si stockage puis ça donne yi n'est qu'on ensuite léegi nga gis euh, mu def restauration réussi léegi di nga gis ni sa données yëpp dellusiwaat te du am problème et logiciel baa ngi noonu moom mooy i transfer lien yëpp a ngi ci description bi donc euh, du ma def nous lu du di leen di jox dig daje ci samay prochaine vidéo incha peace